am paj tudd itam ñi nga xam ne nii ñoom ñooy aji ñay faj nee na nag ñooñu di waa kër docteur wane nañ njàmbaar wane itam pas-pas wane itam bëgg seenu réew goo xam ne nii moo waral ñu yeeyoo njukkal loo xam ne nii day jaar ci sama kàddu te mu doon njukkal wu leen askan wi yëpp ameel nee na nag loolu boole na ci mbooleem nag banqaasu réew mi yëpp ndax ku nekk bay nga ci sawaar ca la nga xamante ne nii moom lañ la dénk moom njiitu réew mi nee na mbokk itam mu sargal sant bu baax jaajëfal waaye itam nag gën a kañ ñi nga xam ne nii ñooy yëngu ci wàllu njàng ak njàngale ndax nee na kat wàllu njàng ak ci jamono yii ak yi ñu génn doonoon doon na ba tey lu mitti lool waaye nag teewul ñoom ñu wane seen pas-pas wane li nga xam ne itam noonu waggar guñ ca waggar ba kenn bañ leen a jam ci loolu nee na loolu moo waral itam mu leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci jaajëfal nee na li nga xam ne nii nag moo di leneen lu ñu nimmiku mu di ñii di jël gaal di génn jël gaal di dem bitim réew seeni bakkan di des ci géej gi ñu ciy faatu di ci ñàkk seen bakkan am nu ñoo xam ne nii itam ñoo ciy amoom koom te loolu doon loo xam ne nii koom mu ñàkk set la doon loo xam ne itam lu ñàkk xelu la waaye lu ñàkk rafet la nee na nag loolu moom nguur gi am na lu taxawaay bu mu ci war a taxaw dina ci gën a bay waaram itam ngir jëflante ak ñooñu nga xam ne nii dañuy wan ne kat ñii fiy génn bu ñu demee le mën nañ faa am lu gën fii ñu nekk nii di leen lor ba seen bakkan di des ci géej ñuy itam seen mbokk nee na loolu xel mënu ko nangu te loolu liñ ciy doon jëflante benn rek dinañ ko ñaar nee na ci li nga xam ne moo doon tawat ji di Covid 19 bi mu fi nuyoo am na taxawaay boo xam ne ni nguur gi da ko cee taxaw ndax kat dana nag ndeem kii da dib noon fas yéene jëflanteeg ñun ñun itam fokk ñu am loo xam ne nii noonee la ñuy taxawee bu mën a jëflanteeg noonu boobu moo waral lu toll ak junniy milliards ci suñu xaalisu réew ñu jël ko itam dugal ko ci xeex bi nga xam ne nii moom la ñuy xeex tawat jooju te ñu jaarale ko itam ci li nga xam ne moom la ñuy wax force Covid nee na nag loolu am na ci taxawaay am nañ ci itam daanaka janoo boo xam ne nii janoo nañ ko ak tawat ji ak jëflante goo xam ne nii jëflante nañ ko ak tawat ji la cay misaal mooy ba tawat ji nuyoo boobu benn barab rek lañ amoon boo xam ne nii moo war a mel ni itam daanaka dalal ñoo xam ne seen yaram du susutante ci wàll woowu waaye nag bañu demee ba ci biir ba itam am taxawaay boo xam ne nii gën nañ koo màndargaal lu tollook juróom fukki barab ak ñaar yoo xam ne ay wàllu kër docteur lañ sanc nañ leen sos leen taxawal leen ngir lenn taxu koo jóg loolu jëflante ak tawat jooju nga xam ne nii moom moo doon Covid 19. nee na ñi ngi juñu wàllu ñàkk yi ñàkk yooyee nag buñ ca yeggee li nga xam ne nii moo ci doon taxawaaye suñu réew mu doon taxawaay bu waggar taxawaay bu way deng ak taxawaay boo xam ne tam bu xel mën a nangu la boo xam ne nii itam kenn du ñu ci jam nee na loolee dinañ ko ci am nee na nag tawat ji ba tey mi ngi fi. mi ngi fi tey mel na ni itam dafa gën a am taxawaay bu yees bu mu taxaw nee na nag taxawaay bu yees boobu dafay laaj na ñu gën a waggar gën a farlu gën a itam di fegu ndax kat ku nekk xam na ni ñii di nekk Sowetaas ak ñi ciy faatu ñu ngi woy ñu ngi leen di nimmiku te itam suñu njaboot képp la ñooñee nag dañoo war a gën a mën a am noo xamante ni noonu la ñuy taxawee taxawaay bi nag weesuwul lu li lii ñu docteur wax ngir ñuy sàmmoonte ak la ñu war a sàmmonte ngir mën a fegu suñu bopp fekk suñuy ñooñ nee na loolee luñ ci doon def benn nañ ko ñaar ci gën cee itam wane li nga xam ne nii moo doon pas-pas ak ak farlu nee na nag loolu doon na loo xam ne ni ku nekk ci am yu wàll ku nekk itam moo ci mën a bay waaram du lenn kenn loolu doon loo xam ne ni ku nekk nag bu ko xamee noonu la ci doon li nga xam ne ni moo ci doon sa wàll doon ci sëb cër kenn du la ci soññ yaa ciy soññ sa bopp ngir li nga xam ne nii moo doon suñu taxawaay ñu mën cee am ndam nee na nguur gi lépp loo xam ne nii mi ngi koy def ci wàllu wér-gi-yaram mi ngi ci te it kenn nattablewul ne li nga xam ne nii moo doon itam euh, jéego yi ñuy def doon na loo xam ne lu màndargaw la la ciy fukk ak benn moo di barki démboo njaay rek barab bi nga xam ne nii dafa nekk ca faan te muy saafara ay tawat yoo xam ne nii yiy wàllante lañ te ñu nemmi ko ci déndu Afrique yi nee na barab boobee ba ñu koy daloo dafay doon luy xam ne ni itam day mandargaal taxawaay yi ñuy amal ngir lépp loo xam ne moo doon wàllu kër docteur ci wàllu woowu nee na ci atum 2021 bi itam bu ñu ci yàlla yóbboog jàmm dina am ay barab yoo xam ne ni dinañ leen euh, dalloo mu nekk itam kër docteur fi nga xam ne moo doon Kédougou Kaffrine Sédhiou ak Touba ak leneen loo xam ne ni itam lu tolloog fanweer ak ñett la ci ay bërëb yoo xam ne nii ay bërëb yu waru kër docteur la waaye itam fu ñuy dalale ñi di wàllu Sowetaas ak ñoo xam ne ni itam daanaka la ñu war a def ci ñoom ci wàllu tem bu seen yaram sutante ba yegg ci lool fu ci mel ni Njaareem fu ci mel ni Fatick fu ci mel ni Kaffrine Kaolack Louga Matam ak Ndar nee na am na yeneen barab yoo xam ne ni itam ay centre de dialyse la wax bi maanaa ñi nga xam ne foofa la ñuy faje lépp loo xam ne moo doon xee feebaru roño ndax fu ci mel ni Njum tijji nañ ko Kolda Kaffrine Sédhiou añam ak Kédougou ak leneen loo xamante ni itam def nañ ko ci ba buñ ko xaymaa toll na ci ñaar fukk ak juróom nee ci téye jël euh, faj ak taxam taxaw ñi nga xam ne ñoo am tawatu cancer kenn réerewul mbir ne am na loo xam ne nii itam def nañ ko ca jam ñaajo te loolu doon loo xam ne nii incha allah ci weeru mars deux mille weeru mars bi ci la ñuy tàmbale liggéey yi te buñ ci yeggee nag ci wàllu cancer lool dina ci am jéego yi am solo ñu ciy def nee na suñ xoolee fukki diwaan ak ñeent yi nga xam ne moo nekk suñum réew fukk ak benn yi am nañu ay jumtukaay ci wàllu wér-gu-yaram yoo xam ne nii suñu xel ci xew tawatu xeeru feebaru ween ak leneen loo xam ne ni itam ci wàllu rajo ak loo xam ne ni itam ci wàllu xool saytu tawat yi nga xam ne itam ay cancer yi dal jigéen ñi la loolu doon na loo xam ne ni itam luñ ci am la ci ay liggéey luñ ci am itam ci jëf joo xam ne nii jëf ju màndargaw la njiitu réew mi nee na li nga xam ne nii moo doon wàllu woowu ku tudd wàllu kër docteur tudd ñay faj lu tollook juróomi téeméer ci ay doc wàllu ay kër docteur bi ay médecins yoo xam ne nii dañoo jàng ba am seen doctorat lu tollook juróomi téeméer ñoom doon na loo xamante ne nii dinañ leen jël lu tollook itam junni ci ñoo xam ne nii dañuy yëngatu ci wàllu kër docteur donte yegguñu ci itam euh, euh, dayoo koo xam ne nii am na doctorat ci wàllu kër docteur ñoo ñoo xam ne itam mu yoon ay infirmier ak ñeneen ñoo xam ne nii ñooy ànd di jàppale docteurs yi ci wàllu paj mi ndax ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey boobu lu tollook junni itam incha allah dinañ leen jël nee na li nga xam ne nii moom moo doon taxawaay bi ñuy taxaw ngir xeex tawat ji di Covid 19 ku nekk xam ne ne tawat jooju xaw naa am gal euh, nasaxal goo xam ne itam nasaxal na ko suñum koom nasaxal ko itam li doon këru liggéeyukaay yi ba loola waral lu tollook juróomi milliard ak genn wàll ci wàllu cosaan ak aada ñu jël ko dugal ko ci biir ngir jàppale leen ko ndax ku nekk xam na ne am na yëgguñ ko yëg nee na ñi nga xam ne itam ñoo yëngu ci wàllu tourisme bi wàllu hôtel yeeg lu ni mel lu toll ak juróom fukki milliards juróom fukki milliards suñu xaalisu réew dugal nañ ko si te ku ko tudd itam fi wàllu tourisme fii ci suñu réew tudd fu ci mel ni sali ndax ku nekk xam ne ni géej gi am na lu mu defoon ca loolee nga xam ne nii moom moo doon pegg ba loolu nga xam ne itam moo doon kër ya nekk ca wet googee moo waral lu toll ak juróom ñaari kilomètres Eh, ñu am liggéey yu ñu ca def loolu moo waral itam ñu mën a sowe ay hôtel yoo xam ne toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar amitam itam ay liggéeykat yoo xam ne nii nekkoon nañ foofu te itam seen liggéey mënoon cee am luñ cee ñàkk ñu daal leen ci taxawu lu tolloo ko jun te jun million ak fu euh, téeméer ci ay njaboot itam ñu taxaw leen ci ay ndimbal ak jàppale goo xam ne nii nguur gi jël làmb na poosam dugal ko ci ngir jàppale leen ko ci seen wàllu facture courant ndax jafe-jafe yooyu itam bi mu amee ci wàllu tawat ji ku nekk xam ne itam am na ñoo xam ne seen bët xonqoon na ba seen loxo itam jotatu loon seen ginnaaw te loolu ñooñu itam yeyoo woon lool ndimbal ak ak jàppale nee na loolu moo waral mu def lu ni mel suñu nattango yi ak doomu Sénégal yi xam ne ñoo nekk ci bitim réew ñëw taxawu nañ leen ko ba ñu ñibbi ci suñu réew jàppale leen am itam ay koppar yoo xamante ne ni boo leen xoolee lu tolloo ko téeméeri junni ak euh, euh, téeméeri téeméeri junni ak ñaar fukk ak njaboot gu fa nekk jàppale nañ ko waaye itam lu tolloo ko junni ak ñaari téeméer itam indi nañ leen fii ci suñu réew ngir mën leen fukki junni ak ñaari téeméer indi nañ leen suñu réew te ñu bëggoon a ñibbi si itam moom njiitu réew mi ba tey xam ne na suñu koom am na yëg yëg teew gi fii tawat ji di covid 19 teew ndax niseroon nañu ne bu ñu yeggee ci at mii nga xam ne moom la ñu génn euh, téeméer bu nekk juróom benn lu tomb juróom-ñett dinañ ko am ci li nga xam ne moo doon wàllu yokkute du croissance nee na xam même téef googee nag jotuñu koo am la ko waral moo di tawat yi waaye nag ndokk ba nga xamante ne nii am nañ nawet boo xam ne nii nawet bu barkeel la nawet bu naat ndox moo xam ne nii itam ndoxum euh, mu jàmm la ndoxum jàmm la moo xam ne ni dimbale nañu lool ba ñu am daanaka euh, nawet bu boo xam ne nawet bu neex la nawet bu naat ba nga xam ne ni moom lañ ci doon jublu itam itam ñu am ko ci nee na li nga xam ne moo doon wàllu mbay mi diggante deux mille euh, vingt ak deux mille vingt et un bii nga xam ne ni tam moo doon at mi ñu génn ak at mi ñu dugg lu tolloo ko ñaar fukki ñeent fukki milliards jàpp juróom-benn fukki milliards dugal nañ ko ci li nga xam ne nii moo doon jënd bi ñuy jënd ay jumtukaay ci wàllu mbay ak li nga xam ne moo doon machine ak li ñuy jàppale béykat yi waaye itam yemuñu foofu moo waral waral tam ñu am loo xam ne ni ci wàllu ndeq ak lu ñuy góob ak lu ci wàllu meññeent am na ci loo xam ne itam ay tonnes yu am solo ndax ñetti millions eh, ci wàllu tonne ak juróom téeméeri junni ak fukk ak benn am nañ ko ci loo xam ne ni moo doon wàllu ceeb dugub ak mboq li nga xam ne ni itam moo doon bëgg-bëgg yi ñu doon am ci wàllu gerte am na jiigu yu am solo yu ñu ci def ndax million gu tonne ak juróom-ñetti téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom-benn am nañ ko ci loolu mu doon loo xam ne itam lu ñu rafetlu la moo waral itam mu ne am na nag lu ñu doon jënd njëgu gerte gi mu tolli woon ci ñeen fukki dërëm ak ñaar léegi nag yóbbu nañ ko ci juróom fukki dërëm loolu di màndargaal taxawaay bi nga xam ne nii moom la nguur gi am ngir itam jàppale ñëpp ñu ci yëngu waaye nag nee na gerte googu yi nga xam ne am nañ ci ndeqi mu am solo nañu góorgóorlu def suñu kéem kàttan ba ëllëg ak jàmm nag ñu mën a am jiw woo xam ne nii béykat yi nañ ko mën a jëfandikoo waaye nag am kër yi nga xam ne itam dañuy liggéey ci wàllu itam segal diwlin ak itam di fexe ba segal gerte gi di fexe ba ciy génn diwlin itam loolu ñu am gerte guñ fa mën a yóbbu njiitu réew mi nee na ku tudd mbay itam tudd yenn barab yi gox yeeg diwaan yi ñu leen di wax ay agropole moo waral nag ñu ne li ñu fay bay te mu doon loo xam ne léeg-léeg dafay yàqu ci seen loxo mbaaye itam du ñu ko mën a liggéeyaat ba mu am koom ma ca war mën a am nee na loolee nag moo waral ñu am ay agropole bi maanaam ay kër yoo xam ne nii ak ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne nii dañ leen di def ci yenn gox yi diwaan yi rëdd yi ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu mën di soppi la ñu fay bay ba am ci itam koom mu tonowu nee na ci wàllu càmm gi ak ci wàllu itam napp gi itam def nañ ko ci ba mu mën a indi li nga xam ne nii moom moo doon am koom nee na wàllum xëy mi ak li nga xam ne nii itam moo doon ku nekk sos loo xam ne ni di nga ci mën a gis sa bopp di ci mën am am koom nee na ku nekk itam gis na ne am na taxawaay boo xam ne def nañ ko ci rawatina nag ci wàllu jigéen ñi ak ci wàllu ndaw ñi nga xam ne kenn mënut a tudd am koom ak yokkute ci am réew te tuddoo leen nee na nag koom moomu nag dafa laaj mu indi ak yemale indi itam ak jubbante ak joyante sàkket wi ci ñi nga xam ne nii moo doon yenn godox ak diwaani rëdd yi nga xam ne nii dafa am li leen ñenn ñu ëppalee nee na nag loole ñoom dañ ci xippi seen bët bu baax xool ko ba ku nekk la nga war a am te nga yeeyoo ko te mu yell ci yow ñu fexe ba loolu dara bañ cee manqué nee na njiit moom li nga xam ne moo doon waa DER doon banqaas boo xam ne nii itam dafa nekk ci nguur gi te yor ay koppar di ci taxawu ndaw ñi lu tollook itam euh, téeméeri junni ndaw ak juróom téeméer ak juróom fukk dimbale nañ leen ci moo xam ay ndaw moo xam ay soxna ci wàllu mbéy mi ci wàllu càmm gi ci wàllu lépp loo xam ne nii itam moom moo doon wàllu napp gi ba gis ci seen bopp bu baax itam nen nag loolu moo waral sax ñii doon itam ñu nekk ci bitim réew te yor seen i koppar am kóolute gu ñu am ci ñun ba gën ñoo jàppale loolu itam ñu feeñal lool seen yéene ci li nga xam ne ni moo doon pavi bi pavi doon programme boo xam ne ni itam dañuy gën a mën a jëmal ak gën a mën a dooleel ñenn ñi nga xam ne nii dañoo itam am yëngatu gu ñuy yëngatu jógoo ko daanu ci yenn entreprise yi te ñooñu laaj lu leen dooleel moo waral lu toll juróom-ñaar fukki milliards ak ñeent ci suñu xaalis réew ñu ne incha allah ci atum mii nga xam itam moom lañ génn mu doon 2020 ba 2022 dinañ ko ko ci dugal ngir mën koo dooleel nee na nag loolu ba tey dina mën a am lu mu jur ci ay liggéey dina mën a am lu mu jur itam ci ay xëy dina am lu mu jur itam ci am koom ci ñi xam ne nii ñooy yëngut ci wàllu woowu njiitu réew mi nee na am na ñoo xam ne itam ci wàllu yaxantu ñooñu nag ñu laaj jàppale laaj itam ndimbal laaj li nga xam ne nii moom moo doon itam ak taxaw gu leen nguur gi war a taxaw moo waral lu tollook ay projet bi maanaa ñoo xam ni dañoo am yéene am lu ñu nas itam am lu ñu naal ñu war leen cee jàppale lu ci baree baree bari jógal nañ ci ay koppar ngir mën leen a dimbali ci loolu nee na xëyu ndaw ñi doon na loo xam ne nii lu kenn munte bàyyi euh, mu kenn munte day naagal la fokk itam ñu gën koo wane pas-pas boo xam ne nii moom lañ leen di gunge moom lañ leen di jàppale ci wàllu entreprise yi nga xam ne nii itam ñoom la ñu sos ngir ñuy mën a am ñuy fay xëy di fa gont di fa liggéey di itam am di fa daan seen doole bu seen ñaq fere itam ñu am lu luñ ci mën a woo am ñu ci mën a seetloo nee na ñooñu nag dañoo laaj jàppale moo waral ci ci dëkk bii di jam ñaajo am loo xam ne ni itam parc industriel lañ koy wax bi maanaam bërëb bu yaatu boo xam ne toll na ci ñeen fukki hectare ñu daal di ko fay taxawal dara taxu koo jog lu amal fa ay industrie ay këru liggéeyukaay yoo xam ne ni ndaw ña gone ya ñi nga xam ne moo doon mag góor jigéen dinañ fay mën di xëy di fa mën di gon bu saa su seen ñaq fere itam ñu am loo xam ne nii moom la ñuy seetloo am am koom nee na nag jéego yooyu ñu def rawatina nag ci li nga xam ne nii moom moo doon wàllu liggéey ay tali ay mbedd ak ay yoon ak tali yoo xam ne itam tali yu dëppoo ak jamono la moo waral ci déndu Afrique kenn mënut a tudd fukki réew te tudduñu ci nee ñun bokk nañ ci ñooñee nga xam ne nii ñoon lañ koy ndamoo di itam di ci am li nga xam ne nii moo doon mbégte ci wàllu woowu njiitu réew mi ba na ci li nga xam ne nii moom moo doon yenn autorité fii ci suñu ci suñu réew ak li nga xam ne moo doon yenn tali yi bu ñu ko xoolee am na ay projets yoo xam ne nii toll na ci juróom-ñeenti projet yoo xam ne nii itam yëggale nañ leen loolu itam jur lu tolloog ñeent fukki ñeen ñeenti téeméeri kilomètres ak ñaar fukk juróom ci loo xam ne ay liggéey yoon la ak ay mbedd ak tali yu ñu defar bañ ne booy moo xam ay pont la ak ay autopont waaye tam nag am na ci yeneen dérëb yi nga xam ne nii ñooñu di waa PUDC doon kuréel goo xam ne dafa bànqaasa ci nguur gi tey toppatoo lu ni mel te yenn gox yi diwaan yi rëdd am na ci taxawaay guñ ci taxaw ba am ay sémb yoo xam ne yam sémb nañ ko ci fu ci mel ni Mbuur Fatick Kaolack loolu nag li nga xam ne moo doon autoroute boobu toll ci fukkee téeméeri kilomètre loolu léegi incha allah itam lépp bokk yemb am na leen loo xam itam sémb nañ ko bu ci mel ni itam autoroute bu jógee cees Tivaouane ba Ndar loolu itam war a toll ci téeméeri kilomètre ak juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ab liggéey la waaye nag loolu bu ñu génn ci yenn diwaan waaye fii ci biir ndakaaru nag li ñuy wax BRT te mu nekk saxaaru yees yoo xam ne nii itam yu dëppoo ak jamono la ku nekk xam ne ne am na liggéey buñ ciy def ba fii itam ndakaaru ak digganteem ak Jamñaajo ak fu ci mel ni itam géejawaay ak lépp loo xam ne ni moo doon yenn barab yi ñuy gën di mën a yombal dem bi ak dikk bi soppi xar kanamu dëkk bi yeesal ak gën a ñoŋal li nga xam ne nii moom moo doon yenn barab yi yenn barab yi tam ku ko tudd tudd wàllu saxaar gi ndax saxaar doon na cosaan ci suñum réew ku ko dudd tudd Tambacounda ak liggéey yañ fa def ak liggéey yañ fa sémb gannaaw saxaar gi itam ngir gën koo ñoŋal gën ko yeesal wàllu poor itam muy batu yi nga xam ne ñooy jaar ci géej gi ak leneen loo xam ne itam lu ni mel la am na lu ñuy def mu nekk ca diggante ñi ak Sendou li nga xam ne itam moo doon ci wàllu poor boobu ak lañ cay lif ci wàllu liggéey ñu ngi koy wëyal nee na nag mi ngi am itam ak mbégte di xamle ne incha allah ci at eh, yi nga xam ne nii itam moom eh, ay waxtaan yu amaloon la ba lii doon port bi mu ngi dippee itam port bu nekk ca Ndaayaan war a toll ci junni eh, hectare ak ñaar téeméer loolu waxtaane nañ ko ba mu yemb ba koppar yi nga xam ne itam war naa toll ci juróom-ñetti téeméeri million ak ñeent fukk ci xaalisu Amérique mu doon ay dollar loolu doon na loo xam ne ni bu ñuy xool ay financement bi maanaam ay koppar yu ñuy dugal ci ñoo xam ne nii ay jàmbur ñoo koy dugal ci suñu réew lëngoo ci ak gi moo gën a doon li gën a rëy ci semb yi Sénégal mu si semb ci wàllu woowu nee na nag loolu dañuy ñaan mu sotti coleet daal di yemb bu ko defee lépp loo xam ne nii moom la ñu ciy séntu te mu mun ñu doon lu ñuy lëkkale ak Afrique ci wàllu woowu mu nekk loo xam ne nii lu kenn dul nattable la lu ñëpp naan jàkk lay doon te nee na bu ñu ci loolu nag ci port boobu dina waral xat-xatloo ak tàncaloo gii ñu gis ci ndakaaru bu mun te dañ ba jeex tàkk itam ci wàllu port bi mën a wàññeeku lool te lool loolu la muy jur moo di ñu nekk ci bitim réew te dugal seen i koppar nga ne itam dem bi ak dikk bi day lool ci ñoom du am lenn loo xam ne tardement lay doon ci seen wàll loolu doon loo xam ne itam lu jàppandi lay doon nee na wàllu port boobu sax ngir ubbeeku giñ ubbeeku ci àdduna bi moo waral ñu bokk ci li nga xam ne moo doon passeport logistique mondial bi nga xam ne nii dañuy gën a may ñuy gën di lëngoo ak ñooñu ci wàllu marchandise yi jaar ci géej gi ngir gën a wane itam ne kat fa lang gu mag googee nekk ñun foofee lañ bëgg a nekk wàllu aéroport nee na fi nga xam ne moo doon AIBD doon aéroport bi nga xam ne itam moo nekk fii ci Blaise Diagne am na lu ñu cay liggéey loo xam ne nii dina gën a mën a indi lool ak ñoŋal ak ak jàppandal ci li ñuy toppatoo ak itam di gën a defar ak di gën a ñoŋal avion yi nee nag ci wàllu aéroport yooyu fii ci suñu réew ku nekk xam ne ne ndar ku ko tudd tudd ko wara gi maatam am na ay liggéeyuñ ci semb yoo xam ne incha allah ci at mii dinañ leen dinañ leen jébbale ba tey nee na am na liggéey yoo xam ne itam semb nañ ko fu ci mel ni Ziguinchor Tambacounda Kédougou ak aéroport yoo xam ne nii itam moo nekk ca Kolda Sédhiou Cap Skiring Linguère Podor Bakel ak Siménti loolu yëpp doon loo xam ne day gën a yombal dem bi ak dikk bi ci wàllu woowu moom njiitu réew mi li nga xam ne nii moo doon wàllu courant bi itam am na jéego yu ñu ci def kenn réeréwu ko mbir ba tax na nag nee na loolu day doon lu yell ci ku nekk ndax nag ni yenn réewu taax yi war a amee courant muy leer muy niitu itam ba lépp bokk leer nañ noonee la ko ñeneen ñi itam yeeyoo moo waral mu am ay jéego yu ci def ci loo xam ne ni itam lu toll ci ay mégawatt yu am solo la yu ñuy jël war koo jël ci ay làmp yoo xam ne ni itam lamp yoo xam ne day dax ci jant bi ak làmp yoo xam ne nii itam leneen a koy doxal lëpp lëpp ngir am ma fexe ba gën a indi ak yemamale ak yemale indi itam ak tollale ci ñi nga xam ne itam ñoo yeeyoo courant boobu moo xam dëkk lu dëkk dëkk sori sori sori lu toll junniy dëkk sax boole nañ leen ci li nga xamante ne nii dugal nañ leen ci lu ni mel te buñ xoolee itam ci njëlbeen ñetti téeméeri dëkk la woon li nga xam ne itam moo doon làmp yooyu nga xam ne itam moo doon ay lampe solaire lu toll ko téeméeri junniy lamp ci lu wàllu woowu ci incha allah ci at mii dinañ ko jël ngir gën a mottali lu ni mel te boo ko xaymaa itam loolu gën day raw fopp juróom fukki junni làmp yi nga xam ne nii moo nekkoon yéene ji ca njëlbeen PUDC nu mu ko waxee ci wàllu yenn dëkk yi gox yi ak diwaan yi lépp loo xam ne ni ñoom dañu koo tum te te PUDC ñu sas ko lu ni mel ci wàllu courant ak ci wàllu tali ak wàllu ndox itam ñooñu waa PUDC dinañ ci def lañ ci war a def bu ñuy wax wàllu courant itam xool loo xam ne dafa méngoo ak jamono mu nekk wàllu courant bi nga xam ne nii fu nekk la mën a jógee ndax nee na am na loo xam ne itam ñu ngi koy nisar ci wàllu courant ngir gën ko mën a yeewanal te gaz war koo doxal nee na nag loolee buñ ko defee dafa mel ni dañuy méngale wax ji ak jëf ji ndax la ñuy wax ci li xam ne itam te yeexal ko ci suñu yoon yi dëkk mooy nañuy fexe ba wàllu yi nga xam ne nii moo doon wàllu gaz bi ñu mën di ko jariñoo ba lépp loo xam ne itam yoon dàq ko ñu mën cee jëfandikoo ba mën cee niitu nee na nag loolu bu ñu xoolee li nga xam ne nii moom la ñu nisar ci projet centrale bi nga xam ne itam moo war a am te ñu itam di ko gaz di ko doxal nee na loolu di tekki lenn doxalin wu nga xam ne itam moom lañ ci jublu moom njiitu réew mi nee na at mi nga xam ne ci la ñu nekk mu doon deux mille vingt te buñ ci yàlla yóbbu jàmm muy waaj a jeex suñu koppar yi war a doxal suñu réew mi nga toll woon ci ñeenti junni milliards yu tegal juróom fukk junni milliards juróom juróomi téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñeent at mii ñu mal nag am na lu koy ëpp. Euh, bon at mii ñu génn bon mu doon deux mille vingt mbaa mii ñuy waaj génn moo waroon toll ci ñeenti junni milliards ak ñaari téeméer ak juróom fukk benn waaye at mii ñuy dugg incha allah war naa toll ci ñeenti junni milliards ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent nee nag loolu def ngeen def nañ ko gis nañ ko donte am na ay jafe-jafe yoo xam ne nii daanaka tawat ji indi na ko waaye nag loolu ñu ngi koy itam man gannaaw ba ñu boolee itam doon wenn say ak am loo xam ne itam naal bu ñu naal la ñu koy wax PAP 2A mu doon loo xam ne ni itam day gën a yeesal gën a indi ak wagar ak pasteefu ak njaxlaf ci li nga xam ne ni dem moo doon liggéey bi ñuy liggéey nee nag war naa am ay joyante naam ci at yi nga xam ne itam moom la ñu dëgmal wara a itam am loo xamante ne nii moom moo doon gën a taxawal lii doon itam suñu koom ba lépp loo xam ne nii moo doon la ñu war ko war a méngale ak jamono ñu méngalee ko noonu ku nekk itam la ca doon sa wàll nga mën ko cee jot te mu doon lu yell diwaan yi gox yi ak rëdd yi itam yem ñàkk yemale gi nga xam ne moo ci amoon ñu joyanti ko ba indiwaat itam ak tàggat ak yar ak defar ci wàllu xel ak wàllu xam-xam ak dem defar ci wàllu njàng ak def xam-xam ci tuut tànk yi ngir lépp loo xam ne nii moo doon yéene jiñ am ci ñoom ñu mën cee am lu kawe suñ jot nee na nag loolu nag ku ko bëgg doo jasandiku doo noppalu doo day naagal lenn waaye la nga doon def benn da nga koy ñaar ci bu ko defee ñu mën a njaxlafal jéego yi mën a farlu ba yegg ci lool waaye te mën a waggat ci liggéey bi nee na wàllu suñum réew ku ko tudd tudd wàllu diisoo waxtaan ak sottante xalaat ngir xam ne itam dañoo war a bennoo war di diisoo war itam indi ak dal ndax dal gi foofu képp lañ ko mën a jëlee bu fekkente ne nag bëgg nañ li nga xam ne nii moo doon suñu tawfeex bëgg li nga xam ne itam moo doon suñu aafiya ak suñu jàmm fokk ñu gën a farataal diisoo boobu gën a doon wenn say gën a doon itam benn jum ba lépp loo xam ne ni moo nekk ci suñu kanam te ñu war a mën a jëflanteeg moom ñu mën koo mën a daan lépp loo xam ne moom la ñuy yóotu mu gën suñu réew itam ñu mën koo am loolu ba tey muy ndéwénal déwénal ñëpp dee balu àq ñëpp te itam di sàkku ak dal di sàkku itam jàmm di sàkku itam ndam ci dél ak naali sédd yi nga xam ni itam am nañ ko lu geetu jërëjëf Khaly Seck yow mi ñu tekkil discours bi chef de l'État njiitu réew mi def tey ji euh, ñu